mbarey kesey tub saxaaram tey defar ak diw ku ñëw joxes lëf mu dal lay yóbbu yóbbu bu bir moo tax diw ku ñëw joxes lëf mu dal lay yóbbu yóbbu bu bir moo tax mën naa la ngëbal mbër mbaa nga ngëb ko ca ngëb koo ngëb bu wér bu ñu koy yóbbaale yóbbu la far sëriñ bi yow ki ma may loo xam ni kenn xamu ko saw tagg war na ma war goo xam ni kenn xamu ko naa jóg te tagg la ngir as gor su xam ka ko may muy sab géwal waane yow saw tagg kenn mënu ko yaa jiitu gaaya fi daawar gaynde yee ka wax ak garab yi ngir danga ko man yow te naa matu ko wutoo ku lay gis wutoo aw tur wutoo daraja wutoo lu dul yàlla yow mii rekk yaa bàyyiku bul gëm ku dul topp yow kii nit te dëgg ji sal rab waa ngi naaw ak a jéggi dex te kenn gëmu ko kuy soppi soo si wurus tey dox di mooy ndigalit kookaa di dëgg dëgg yi saytaane yow sori ko saytaane day naaw a kay dem màkk añ miri na di dellu si mooy ndigal kii kay ko xam wattu ko karaama moo di bayin mooy lii la ahmadu wax kuy def karaama guddul gii foo ko gis moyu ko nan topp sunu waa ji moo fiy def karaama yu mat du moy du moy lu te sunu waa ji ku xam jige ko day topp yàlla te kum gis topp loo la ko nag ku fiy gëlëm ak laajum ngir na jóg wuti ko moo yegg yeggale ay gaayam ba kenn desul bii sër bi moo mata jox ak jur jógal joxi ko fabal sa jur gile ak mboolem alal ji nga am te fekki sàmm bu dee fullil nga dénk ko ko moo gën di sàggan banaa lilkat yi lil na ma tey ay sàmmulul nay lii kat bëgg nag jëru ko xamal ni silmaxa suy sàmmi nagam du jofal foo fekk silmaxa suy sàmmi nagam tere ko bayil palamtu bi jàppaltum bi jox ka ko xam mu wan la ngir mi te sew naa sew ba kenn gisu ko ngir maa ngi nekk fi sa wet waane gumba du gis amaana ngay wëra wër bay dee te doo gindiku tey boo bëggee ku la saytul yow sa mbir bàyyikul ku fa mbiram saytu deeful def lu dul bàyyi ko déggal li may wax te bul doyloo sa fóore gi kët saytaane fóore la wan ndaxte na koo alaku te doonte xam-xam dafay tax kenn gën dana gën ngir yàlla jiital na koy at topp rëbb na ko malaaka moo mën a gis day jàq ngir la ko dal teb xej ji dëgg la wan bii sa bii sang la safu ko malaaka moo mën a gis day jàq ngir la ko dal teb xej ji dëgg la wan bii sang la safu ko wax naa li may wax te wax jii doy na waaju xamul ku dégg boppam ku déggul man ma fab jëfe ko jox naa la yow ban ba saa mbir yàlla seere na ko jox naa la gaa yi ma jox seeni mbirit tee ko jox naa la yow ban ba saa mbir yàlla seere na ko jox naa la gaa yi ma jox seeni mbirit tee ko tegal nu tiisu bàmmeel ak tiisu bépp barab te lépp lëf lu nu dul may say ngërëm fegu ko fagul mu mujj gu rafet ak jëf ju sell ju sax te may nu wër sa yére yi yoo xam ni xel daju ko ak fan yu gudd yu ànd ak doylu doylu gu mat walis ku dul yow ba dun wax kenn lii indi ko ak gaa yu am ngor yu dul yokkee ka dox di tawat ak jaglu jaglu gu dul dog ak nawet yu nangu ak gëm gu réy ak rafet njort ak taqoo sa ndigal ak at mu jot sunu mbay mat junni bi barigo te dun ko fooyee ka waxtaanee ka dox di damoo dun def lu dul peese fab jox ndaw mu jox si la ko lii moo di seen yéene te ngaa wax ne yàlla defal te yaa ngi nii bu la soobee yàlla mii defi ko tegal nu ay gàcce faw ak ay balaaki naqar ak i xuloo ak i nëx-nëx buñ ko gis tee ko màngal nu jàmm judul tàggooti ak nu nati sunug dund ak sunug dee bun jenn lor gariku jullik ka def asamaaw ak àjjanaa ki aras jox naa ko yonnen ba ak koo xam ni topp na ko ña jébbaloon yàlla ak yoneen ba seeni bakkan ak seeni jur raw nañu ñàkk ak lu dee fi ragal ñoo def lu wér lu rafet ñoo am lu wér lu rafet ñoo nangu nangu nawet ñoo war saxaari ndigal njébbal gu wér rekk wér moo am njariñ ku ko def raw lépp loo bañ te jot loo bëgg jag te jagal ñi lee ngi baf ngu ñi lee ngi waaxu ñuy wari fas murit ya faf dugg gaalu cant benn fëxal ñi lee ngi rootaani ñii ngi jajj ñii di nasal murid ya faf soobu géeju mbég balab di labal ñi lee ngi jàng arool ak aajaroo maki na murid ya faf xëy ni ràpp ak yàlla jàpp ko jël ñi lee ngi bay ñi ngi jaayaatoo ka sàkku alal murit yi xëy taawu junni junni ak palipal ñi lee ngi tàbbi fu ne kay laaj yoon a kisel murit yi tëb ni ca dëkkum ndam ba cëpp fetal jam lépp faf la reñ lépp ak ñépp fenke ca kaw raw seeni kem seeni kem xëy ngeeju leen a dawal kalanda dal du murit dub sang moo di kafar ëppub murit te matul ab sang cay la ko dal mun ñépp yal nanu lii mooy faw mooy gu rafet tabarke dal nu ci kaw bopp ak lu dal sunu xel ku ànd aku dex lu muy ñaanee ci ndox ak wut bob jant fenkee lu ñuy niit ak lu dee fi ragal mbir yal na jub pexe yal na jub mbay yal na jub xol sedd xel dal ñépp am suturaa ko yiw wala fak fëlëg naa ak tubaab ak képp nit ñii ñëpp yal nañu jub juboo jàmmoo nelaw jàmm ak jub ak jag-jekki yal nañu bokk sax fi mag ak fi ndaw ñoo gën ci mag ñoo gën ci ndaw ndam yal na sax santante sax gërëmante sax ay wépp dee baatam ba dog saytaane daw ku ne yal na xëy tuubu mooyam rëccu mooyam sannig bonam mooy ci jubam daw gàcce raw ku ne yal na bég ku ne yal na gëm wér gudd fan bari pepp way am bopp dox ña ca kaw ca kaw ku ne yàlla na wër mboolem moroomam yépp nag ni ndomba daa wëre ndigg tey yokkoo ko law ku ne yàlla na tiisam wépp jee naqaram wajee tawatam gëjee takkañ mu bég cantam ga ñëw ku ne yàlla na raw lu mu bëgg a raw jot lépp lëf lu mu bëgg a jot ànd ak ngërëm bañatee taxaw ku ne yàlla na tiimu cantam ak njariñam lu wér ti ko ci loxoom ak jàmm ku ko wér neexu xew ku ne yàlla na wàccub coono war ngërëm ak njariñ war barke sax ci jaamu jàmmam jay gelaw ku ne yàlla na am seddu xol ak seddu yaram léppam yéwén muy yokku nag suturaa ko yiw sama mooy gi man buy màgg kay rée kay labal gépp mooy it yàllaa ko ëpp ak yërmandeem bu ma dee labal mboolem ñanay ci nay ba tey yàllaa labal ta boofu seeroo ku tabeem bu ma dee labal bépp ragal it ci ragal ñoom naa kanot xarekat bu nekk ak ab xareem fam naa samay yëf teg ci ndey joorub ka gën wata gën saxaar ak loote gën mbaam ak gëléem teg naa samay mbir ci loxoom ak lépp lëf lu ma am bu dee yóbboo ko dem du ko dox di leem bu yóbbu nit day jàpp jëmmam ak yëfam dugal ak ngërëm yóbboo ko yiw moo man du jéem buy def lëf ak buy dindi lëf nib jant lay mel rekk ci cànkam te mel ko ci ak soyam yal nay njël ak yóbbal ci nun tey kër ci nun tey wétal ak mbooloo mu jub mu ku nekk yéem sama manki gii duma tee di sant ka ñaana mat foo gis ku mat dafa daa dagaanaka samp weem yàllaa yéwén sañ lépp man tabi am njariñ nguuram ga yàlla na ko jàpp jébbal noo kireem moo man te sañ moo xam te am moo gën ña gën suturaama tax laaxam bi sax fi nu nag cereem la mu daa joxub jaamam mu gën bépp kemam lanu koy dagaanate ci tabeem ak yërmandeem la mu daa joxub jaamam mu gën bépp kemam lanu koy dagaanat ci tabeem ak yërmandeem yaa xam te noo ngi fi yow yaa man te noo ngi fi yow yaa gën te noo ngi fi yow yaa dàq àjjana fuuf yaa am te noo ngi fi yow yaa man te noo ngi fi yow yaa gën te noo ngi fi yow yaa dàq àjjana fuuf ndaw ak mag ak ñépp lay ngéejoo ko yéema ka naw te ngéejuwoo kenn yéemoo kenn boole nu wuuf nun ñépp boole nu wuuf ak jàmm teg nu ci say lu pëg ci say lal ku nuy bañ nee ko rëkk fi suuf noo ngoogu faww sa ñépp ak lépp a ngoogu ku nuy fexe tegus coono teg ko wet mu daanu fi suuf loo àtte lëf du ko te am loo dogal mu dogit àtteeli ndam ci nun ak mbég yow te far niru suuf la sedd xol lépp biir ak biiti far ko dogal ci nun te jox nu ko lépp ak wépp lakk wu duuf dogal mu woggu wu sedd xol wu réy te jaxas reerum ngërëm jox nu nuy béglee ka musale ci xiif musal nu nun ci lu dul yow mii mosal nu ci yow mii ak sa yiw wi le ngay roppee fu nekk ka roof roofal sa bopp ci nun faw ak sa yiw wi te bul roppeeti mukk ci nun saw yiw musal nu ci loof roofal sëriñ ban ba ak yonnen ba faw ci nun ñooxal ci nun bu rafet yi yaari jaasi ca suuf roofal ci nun barke ak firdawsi ak sa ngërëm lu dul dañ ak lu nu dàqal tab bi àjjana fuuf seytaana mer na ba jompal matt meccitu ngir yàllaa ko matt mu yor góomam bu dul xama wér mat-mat bi dootuñu tàggoo dootu sedd ak wér bii nattu yàlla na nu mooy nun ñépp mooy gunu wér xolam du seddati yaakaaram ja tas na wesar yaakaari gaa ya mu àndal yépp tas na wesar jiiwaaye bon bonde fees ak gàcc ay wi ko dal ñun ñépp yal na nu teggee teggi teggi gu bir moonoon yàlla te bañ yoneen bu tedd ba nag ni xër seeni ndigal ci àll moo ba ni mbir jibriila kur foñ ko yow mi wonk fëgg ko mbeñ ka max ko mbëkk ko teg kow njur ci bopp mu ser ba max ko wéqu ko wéqu mbër mu sëpp ko jalañ di wey sore ko ayam nuy mucc kay sori lor sorel ko fii fépp jañ koo jañ ba dootu fi jëm nga war nu faw ak sa ngees mbég soonu jagle su wér sa ngeenu taw féex ak jub wër nu kàpp ko yiw musal nu lëf ci xetu firdaw si ndax nu sawar xetam ga yal na ni bonn yi nag fi noonu ku ne bég ba sopp yàlla cofeelu xol gu sell gu tar xetam nga yàlla na ni sëll ak jàmm jópp ci nun nu bokk benn ni wël bi sax ci lépp lu war fajkat bi yàlla na fajal mbooloo mi seeni tawat fajal nu ràggi yaram ak ràggi xol ba ñu wér buurub aras def nu lar buy dund faw ci nguur ba duggakuk dundam ak nguuram ca àjjana goor yàlla naa ne dakk ci géejug jub di féey aka nuur ba dugg faw ak sama jub géeji àjjana nuur yal naa defut santkat buy sant saa su ne buur ba duggaku cant ma nguuram ca àjjana goor yal naa defut santkat buy sant saa su ne buur ba duggaku cant ma nguuram ca àjjana goor yal naa defut toppkat buy topp saa su ne buur ba duggaku topp ma nguuram ca àjjana goor yal naa di ngeen jib gawar buy war ci sàllu suur ba dugg faw wa ku sàllam àjjana ma ki joor yal naa di kuy bég a kay fa mbég ba dugg ak mbég firdaw si biir xol ba far suuxal galaas ak yuur yal naa di danna bu jam mboolem rabam wa ko saf ba noppi jam àjjanay firdaw si ndam defi jóor yal naa di kuy gonta kay xëy tey rañaana ku yiw ba far ni jol lay ca firdaw see këree bari muur yal naa di ku yaramam neex ak xolam mu sawar wayaf te dugg a ngërëm firdaw si jëf jëfi góor la dee fi bañ yal na nuy teggee ka mooy ba banuy dugg ak sunu mucc nun firdaw si faf raw toor te yal na nuy sax ci géppug cant nag ba banuy dugg ak sunu cant nun firdaw si dàmb ca biir buurub aras yal na def xar baaxi cant yu rëy ci nun te jox nu këram gee gaayu tedd ya góor ñun ñépp yal na nu déggu cant teg ca sunuy gët ak sunuy yoxo mus mbég sant faw gërëm ku nekk nay dégg gépp cant faw ak a for di teg bëtam ba ci mbég moo xam ni am na xorom na nopp yépp ni dell ak ndég nu teg sunu bët ci mépp mbég faw sedd xol te neexu yaram na wépp fan gudd bépp xol ni guy yaram wu nekk wér ku ne réccu mooy ñu far ko yërëm na gépp lor sori gépp jaamu sell rafet ñu sant jëf ju ne ci wal waaju ne ku turam na ñépp am dugu bëgg jàmm ak ëree na ku sëb ñu wallu nit ñépp may leenu juboo ki dërëm na ñépp yeesati pul ak wépp tàggaku yiw ñu jàpp ndal ku ne jàmm ak jaamu dàq loram na ñépp seet ci lu leerul wi ci seet gu rafet ku nekk sax ci lu leer ak ndam ñu saytu mbiram na ñépp bokk toxoo ciw ay te sañ ci bu wér ci wiiw ku nekk gërëm gëm yàlla sax ci ngërëm nun ñépp yàlla nanu dëkk ak jàmm dëkk ci gëm te sax ci luy woo mbégum yàllaa ka dàkku meram seytaane yàlla nanu koy daw saa su nekk ak raw ñu hum ko faw ci nun muy daw ba dee ni ngaram sunuy yoxoo ngi nu tàllal teg ci yow mayekat dërëm yi lew domm yoo def barke ak sa ngërëm jaaram yi sangi way woomal yi fàttaliku leen miskin mu nekk fi seenu wette fàttewu leen yaaram yi sang yi way woomal yi fàttaliku leen miskin mu nekk fi seenu wette fàttewu leen ñenant junni yéen ak nit junni ñi ak téeméeri junni ñi laa wax ak ñi topp ci yéen ak xej yi ne ci suuf ak xej yee na ca kaw maa ngi di sàkku ci yéenug wallu wallu si leen ñëw leen a ñëw ku ne jàppas lëf sarax ma ko man ndax yàlla dolleeti leenas lëf te yokkati leen yéenay kuréel yañu fal yéenay kuréel yañu ful yéenay ñaxam ngërëmal buurub aras rusu leen yéenay ñamuy rusa xañ ngir yéen a koy rusa mooy koo rus mu rus la li lee wér noo ngi niitinu leen kañuy rus ak gaaya muy rus faw yal nañu ni yaram bu wér rus nu tin noo tin bu wér nu ti leen te yal nañuy am lu ñuy ngeejoo kataamu ci nun nu am ko jam rabu taw féex ak ngërëm lare leen ñii jox nu ñaaru dërëm ñii jox nu fukku dërëm ñii jox nu ay junni ñee naatal nu laf taw leen ñee far sunu mooy mu far ñee dolli may gu nu am ñee fal nu ñee ful nu ñee leeral nu sikku nu leen ñee fam nu tàbbal ca féef yàlla jox nu lu gën ay junni ñee jox nu jàmm ak yépp yiw nu jaleen ñëm naa ci yàlla ak yonentam ak ñi le man yal naa ne dàkk ci ñoom ak yàlla dimbali leen yal naa farub dog burus loo dog bu nit mu safar ci yàlla ak ci ñanaa jaamam ñi fàttaliku leen gone yee ma jóg yée leena te lëf ndax mu raw mboolem lu bon jot yépp yiw am àjjana yàllante may waxambaane tey woo xam ni wii am nag ragal yàllaa ko yiw fase àddina yàllante may am dimb sax moo xam ni day réccoo ka jooyu mooy banee faakii kana yàllante may ku boroomam ak xejjam ya far gépp mooy am muy sant naa kañ fal mana yàllante may ab lar bu yërmande jépp jot ak jépp jàmm ak jub bu nee faa ëpp na yàllante may ab lar bu ñuy seralub xolam dalalum xelam muy yéemu naa mbég wàcc na yàllante may kañu teel a xëy ñépp ak ñu naa jum xëy di yéem ak a ñeete naa maasam tëna yàllante may kañu teel a xëy ñépp ak ñu naa jum xëy di yéem ak a ñeete naa maasam tëna yàllante may ku ñu faf dugal gaalum digal mu ni sooju ndaw te ne ñebb mag ñu ni sotti na yàllante may ku ñu fenkalit jantum mbégam boo xam ni deeful dégg bis bu ñu naa sona yàllante may ku ñu dundalit fawu xolam naatal këram muy rawlu nee faa lënt na yàllante may lar bu mujjam rafet ak mbiram te mu gudd fan ànd ak gëmam dem àjjana yàllante may lar bu mujjam rafet ak mbiram te mu gudd fan ànd ak gëmam dem àjjana ngëneeli àddina ak alaaxiraa ngi fi yow ku bëgg a jiituy moroomam te mu fekk si la ngëneeli àddina ak alaaxiraa ngi fi yow ku bëgg a jiituy moroomam te mu fekk si la kuy kër këreeka wutug baaxit ci waaju la mooy tamtil la muy kër këreekay wut te nuy siwu la yaa woote ngir yàlla nun noo ngi ku gantu torox te yëggatil boxalam seddit te wuy siwu la wootee la woote ku dul dem naari mujj ni hoo ba mel ni hoo waa ndekay dem naari digluwu la bayil ka jëm naari muy tax tax lu naa dooma gis sëriñ ba ndax la mu xam-xam naa ko ngir gëmu la teew ku lay weddi tey sax ak ka lay gëm a yam tane fi waa penku ak waa soowu topp na la ko dof ba jekki banaa man dey siyaare jiwul waroo mi juddoo ki xam-xam jóg siyaare si la te gërmi yaa ngi fi yow waa doola yaa ngi fi yow di mokk kay wut ngërëm kuy dof ba mokkuu la waroo mi daaraa la fi raamal akay taxanal sa diine wér na ku koy lin kaaritam sëfu la yaa weesu ay lor te weesuy tuuma weesu lu bon yëgal ni yàlla mi ngay gonloo ko xëy naxu la ku nekk boole na yàllaa kes la fit ndare yow yow yàlla rekk nga yoot moo tax ba kenn jotu la du béere kiy ajjumaa kiy ngon na lak mi na lak paax ak alarba yi lay yëf yaa ko dindi wala yaa boole guddee ki bëccëg yow ni yàlla fabal lii tax mu jox la nga neelam yépp nag te jala yaa bayta bay loonu toolu bi yàlla yaa ko setal toolam bi sant na waa toolam bi sant na la yow rekk a tàggale toolam beeki boo yekki dig jaaraama may nga nu ndam am ndam te sonliwu la defar nga mbokk defar jaambur defar nga murit defar nga ab doxandéemit mbakke yow fawu la yaa jàll jalle te may mbooloo yi seeni mébét te jàpp aajoo ki lor faj kuy tawat gisu la doo lor te xam ni ku lay lor yow nga may koo dërëm jéggal ko ngir yàlla tey def def lu ay defu la ku def du jéggile day dooree ka leb leelu bon tey seenu fay gu rafet kii day ko def tigi la wutal nu ngir yàlla tontu fépp fun mën a jëm nun yaanu doy ba nu jóg ngir yàlla fekk si la wutal nu ngir yàlla tontu fépp fun mën a jëm nun yaanu doy ba nu jóg ngir yàlla fekk si la ñaa ngi wër àddina kay jaaba kay wuti yëf bambaa ngi jekki di wut yàllaa ka wut ngërëmam nit ñaa ngi caaxaana kay soowoo ka réere lu xew bàmbaa ngi sell la kay noppee ka xam fu mu jëm nit ñépp a ngi tandalee kay làmbutoo ka fétal bàmbaa ngi gis népp kay def jëf ju wér ju ñu xam nit ñépp a ngi waye dee kay wacc yiw ak a ngëb bàmbaa ngi way deng ci yiw teg ci yàlla bëtam nit ñépp a ngi wuti sornaal ak di jub langu nit bàmbaa ngi ngoy ci boroomam rekk jox ko mbiram nit ñépp a ngi diiri mooy tey téq daalaka mooy bàmbaa ngi diiri ngërëm tey téq daalaka jëm nit ñépp a ngi sooye kay ñàkkug ndawal ak i wal bàmbaa ngi jam faw tey am nag ndam ak ndawalam man maa ngi topp ci gannaawam rabam wu mu jam ma daw faral ko mu may maw lakku doon li ma gëm moo sàkku yàlla ba am moo daw baraw lu ñu bañ moo dàq ndam la ba jot seytaane dem na mu dem moo jiitu gaa yépp moo raw ñépp kenn du ko jot moo sang-sang ya moo di sang moo rëy ndam ñun ñépp yal na nu may as ndam ci ndam yi mu yor ci yërmandee ma nga neelam lii di wéy te du yam ñun ñépp yal na nu may wërsëg wu lew wu lewet ak jàmm ak gudd fan ak wér te ne te teg ca gënam ñun ñépp yal na nu may wërsëg wu lew wu lewet ak jàmm ak gudd fan ak wér te teg ca ngërëm naa tudd fii gaayu am ndam yiy waral xoola tooy ndax ñépp xemmee mu yiw xol yépp dund te tooy naa tudd fii gaayu am ndam yuy waral xoola tooy ndax ñépp xemmee mu yiw xol yépp dund te tooy koo ji ci ñoomub yaram day mat te it te jërëy mu faf lewet gàttu làmmiñ wax ja sedd te nooy doo dégg ñuy jëwu nit doo seeru ñuy loru nit ñoo sell ñoo rafetu yar doo ca seeru ko fuuy mbooleem lu ñuy nëbb kay feeñal ci yàlla la jëm seeni xol ak seeni pas-pas yépp ràññiku suuy gis kenn rekk ci gaay yi jar na juddu di dox di gonte kay xëy ba dee foo xam ni kenn du la jooy yàlla nu jox nag ca ñooñee jenn waaje ca gën muy bàmba jam nanu aw rab waaye tuuti nu sooy bu dul ko nag bàmba mbooloo mépp alkuute bon fekkoon na nit ñépp bon fekkoon na diine ji yooy moo jàpp diine ji dundal boole nit ñi defar xamal ku nekk boroomam ñépp far desi kuuy fu nekk teg na fa kuuyam jox ko xontu bu doy kuuyam lu nekk bu nee yaayit ndeyam ni ko booy sëriñ bi kay nag du maasum gaaya xëy ni melas ba gàncaxu yàlla gi muy dox di gooya ka booy gàncax gi nag moo di nun ñi muy dalal sunu xel te xam ni moo tee ba tey nuy dox di booya ka gooy teewul ñaxey ni meles di mbër yu mag di yu rëy dañoo jotul nag ci dem yóbboo te xol bu ne tooy teewul ñaxey ni meles di mbër yu mag di yu rëy dañoo jotul nag ci dem yóbboo te xol bu ne tooy yaadaa yësam yàlla ak yoneen ba ndam ni rutéet ku nekk ñëw jox la boppam ak yëfam ni futéet yow yaa di lëf yaa jarit lëf yaa jaral ku ne lëf foomas ni mëllëg sa ndam mbooloo ni foofa sutéet yow yaa di gerte gu ñor yaa di nawet bu rafet sag baax a tax ñi la xam naa yooxi cant fateet yaa man di yow yaa nu mandal yaa ni ca sa ngërëm ak sàllu ndam ni nu foox ak ndam lu xëy ni fateet takkal ndigal wéy ca kaw ànd ak ngërëm di gërëm nga faf musal nu ci soof ak suufi ak lu ñu teet defal nga yàlla ci boppam lépp lëf lu ko saf yaa jot mbégam xàllu cantam yaa ko xëy ni fateet defal nga yàlla ci boppam lépp lëf lu ko saf yaa jot mbégam xàllu cantam yaa ko xëy ni xuteet ka ngay liggéeyal ci nun ñi dong lay mën a fay ngir yaa ni bon gi ci mboolem nit ñi ñépp tuteet sa sang jox nga ko àqam jépp jox na la it léppam te bég na nga bég yow doo ko nee ci weteet musal nunun ci weteet a xër ak ci la koy jur lépp yal na tawu santante dëkk xiteet yaa sedd xol amul ab gàkk kenn gàkku la it gàkkoo gàggoo réere wóolaf yaa ni lépp rateet jàngal nu sam njàng leenuy faj dara ka jariñ xam-xam bi ne ko ci nun lépp ak njariñ la suteet jaral nga yàlla lu nekk ak nit ñi yàll nanu lay jaral jaral ku ne ñàkkas lëf jaral ko futeet sa mbind daana waral seytaane fee ci ku daw yonen bu tedd ba muuñas lëf aras jaayu sa mbind daana waral seytaane fecce ko daw yonen bu tedd ba muuñas lëf aras jaayu yaa daa waral yàlla ay yonen ba daanu fegal lor daanu ñoddil njariñ nuy tuuba kay jaayu sa mbindataa tax malaaka yi yàlla yépp di bëgg di tudd yàlla ka sa baateeg ca nag jaayu yaa daa waral xejji suuf ak xejji kaw di gërëm yàlla ka yéemu te naa ji waaye jar jaayu yaa daa waral yàlla def loo xam ne defti ko kon lu yàgg-yàgg ndaxam yow rekk a jar jaayu yaa daa waral yàlla jàppub lar bu dee ci falang baaxal ko nit ñépp xëy doyloo ko muy jaayu yaa daa waral yàlla jéggal ab laram lu mu moy tabal nëbal ko faw bonam muy sant kay jaayu yaa daa waral yàlla jéggal ab laram lu mu moy nëbal ko faw bonam muy sant kay jaayu yaa daa defal yàlla ci jaamam lu rëy lu ko saf ñu bokk sant la biir ak biti bay jaayu yow ñépp sant na ngir yow ñépp bég na ci yow yëgal ni buur ak xejjam ñépp lay jaayu say soppe wuute nañu lëf ngir ñi lee ngi gërëm ñi lee ngi waaru ñi lee ngay jooye kay jaayu jam-jam yu rëy yi nga jam saytaane rekk a waral bu dee si jaayu ci yow muy moolu ñuy jaayu yaa daa bégal gaayu rëy ñuy jaayu yal nanu lay bégal yawit tépp saa ngay muuñ a koy jaayu ñakkat bi ñag nu ñagub canta ngërëm bu nu wër kafak ñagub gëm bu wér cee nga njariñ bu wëraat wër noo ki ñag yu ni guyub xol yu mucc ayib nuy sant kay wër a kay am ba mu nekk wëraat wal bor ak guur akuk bon ak bu xaama ci nun te hum nu ci yàqu faw ak luy waral defaraat defar nu faw defar goo xam ni kenn du gis gannaawa mas yàq yàqoo kas kayib di meraat gërëm nu faw ngërëm loo xam ni lii ba banuy yeewoo ca firdew si deeful gis ñu xëy ko faraat te def nu gaa yoo defar yoo fa defar sa digg ak ñoom it ba dootu ayib ñu yee sa kay sa waraat te def nu gaa yoo faral yoo may ndam ak texe goo dul far gu sax dakk tabbeetil ba ñépp faraat yaa daa yësam yësamaatal ndax sa gaa yi farul farlëf ña daa forforaatus lëf lu ñor ba ñoraat yaa meññi meññile door ak leekar ak gërëmal buurub alas kala def waayam di ñépp maraat yaa meññi meññile door ak leekar ak gërëmal buurub alas kala def waayam ju ñépp maraat koo seeru mar na la mar woo xam ni wii bu dañee dangeen a jekkeeti yaa jar démb tey nga jaraat jaajar lu rëy démb yaajar lépp lépp tayit doolam bu doo daana footo luy waree ka waraat yow raw nga waa démb raw waa tey te kenn du la jot yaa daw ba jot wépp fas daw raw ko wër ko waraat yow raw nga waa démb raw waa tey te kenn du la jot yaa daw ba jot wépp fas daw raw ko wër ko waraat yaa denc yow ndaw sa say kem daagaroo ka jamoo muy togg a kay yekk ngay mus leeka mus sooyoo yaa denc yow ndaw sa say kem daagaroo ka jamoo muy togg a kay yekk ngay mus leeka mus sooyoo yàllaa ko fam ni la am yàllaa la fam ni ko am ngay sant muy sant naa sàmbaa nga naa booyoo yaa jékki-jékki ku jékkay jékki yal na nga sax ci jékki tey mus le cib jooyoo akub juuyoo gàncax gu sax nga gu am ndox weddatoo maraloo ñàkkoo mbayit amul am ñax góoyaloo góoyoo am ñax bu fatt bu laf dul bëtt mu këla wër war ngaa reyu cant ngir xiifoo maroo yooyoo ki jàpp gi may gu rëy jébbal la yal na la may ngay sant cant gu rëy guy tax mu naa yooyoo loo bëgg dikk na loo bañ daw na yegg nga yow ca digg dënd ya ñàkkoo wenn yiw fuuyoo juuyoo ngërëm fala ngoo ndam sanniwoo sa njariñ te teggiwoo barke footo luy bérex xuuyoo yaa yanj-yanjle dootoo fay la deefu la fay yaa mucc yal na nga raw suuroo fesoo tooyoo yaa kii lu tëñ nañu buntub lor bu jëm si ci yow lor doo ko fekki du ñëw faf ngeen itam juuyoo sa bunt mbég nee na pellit benn ubbi ku far te kenn dootu ko tëj ñey waa ngi nii sooyoo sa bunti mbég nee na pellit benn ubbi ku far te kenn dootu ko te ñey waa ngi nii sooyoo yaa xam te yaa am te yaa dib tab xañoo ñi la mooy xañoo ñi lay topp wëccoo kenn ñépp nga may